gaa ñu ngi noonu gaa ñu ngi fii si hôpital Fann Wally Seck moo nekk noonu si oto bi ñoom baxaw xarit jeeg jegañaale yëpp a ngi foofu ndeysaan affaire bu doy waar Akon gaañu na Akon génn na àdduna star bu mag san maa jur Wally Ballago rek doy na ci tur waxatuma nag li mu def ci musique sénégalaise ndeysaan mu doonoon ku baax doonoon ku dëggu doonoon ku ku ku bëgg ab mbokk ndeysaan instant ñu ngi nii direct ci hôpital fan ci morgue bi mbokk yeeg jege ñaale yi ñëpp ñëw nañ hmm? gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi wootante di waxtaan di xool nan ak naka lañu war a def ndeysaan xaar leen ma ma jege tuuti rek Samy Thioune Samy Thioune ku ko xam-xam digganteem ak euh, Thione Seck ak Wally Ballago Seck Samy bi Serigne Sadio maa ngi lay saare Samy mun mënul wax ndeysaan Samy am na am na am na lu ko bett te ndeysaan nee nañ lu nit ki lu ko bett rek mën ko ndeysaan ñu ngi fii nag ci morgue hôpital Fann mbokk yi lu tax ñu koy partagé ak yéen wan leen ni àdduna dafa jeex ba pare nañ rafetal rafetal rek a fi des ndeysaan rafetal rek a fi des rafetal rek a des ñaanal ko saa borom xaare ko àjjana ndeysaan àdduna ngi noonu fu mu toll ñëpp ngi fi ndeysaan ñaanal ko yàlla xaaree ko àjjana rek moo fi des parce que tey dese bi dafa bett ñëpp dese bi dafa bett ñëpp allo papa lan nga lan nga ñu mën a témoigner sa diggante ak Thione parce que yàggul dara waxtaan ngeen. ndeysaan ñëwal ni tuuti. Mhm. xam nga yéeg-yéeg doomu aadama si diggante ñaar nit ñi ànd mhm. lépp mbir suñu borom la mhm. yàlla moo nu sàkk moo nu moom mhm. ak looy mënta mel sa àddina ak looy mënta am sa àddina ni ku nekk ni ku nekk ni nga soraale sa bis àddina bi dara jar ko fi kaay la ñun dimbalante suñu biir kaay la ñun dimbalante tey waxante dëgg parce que yàlla loo bëgg yàlla xamal la bëgg kaa leen ñu dimbalante. ak da waxante tey dëgg suñu biir. coon yaa deux semaines asalem. asalem. sama benn jarbaat sama xarit. du élage mhm. doon maye jarbaatam asalem coon ñëw. Mhm. nu taxaw man ak moom minimum. Mhm. nit ñi xamoon la waaye man xam naa la. ndeysaan barke Sëriñ Babacar Si ma waaw minimum. nit ñi xamu na la waaye man xam naa la. allahu akbar ndax ba nga bàyyi tëgg sabar rek laa la xam. Mhm. ndeysaan. ba nga bàyyi tëgg sabar rek laa xam ni sëriñ Babacar si am na lu mu def sa yow. allahu akbar muy dëgg ah. dëgg la. ma ne ko lii ak lii lii ak lii ak lii war naa ko Serigne Babacar Sy ma gëm. Mhm. ndeysaan. ndeysaan. coon dem na. Mhm. am na ñu judduwaat. léegi léegi ci hôpital bi. am nañu am nañu judduwaat léegi. Uh-huh. ton heure bu mu demee. Uh-huh. am na ñeneen ñu si dem ñu judduwaat léegi. Uh-huh. am na ñeneen ñu dem. waaw kon ñu bàyyi dox àddina àddina tukki na àddina tukkiwul. nit ñi nit ñi nooy dem. ñu ngi jàppante. coon ko baax la ah. dëgg la xam nga man maay kan. man maay Habib Mbégue bu Serigne Babacar si Habib bu Serigne Babacar ba ndeysaan. lu may wax rek. dafa am fu ma ko teg. comme foo ko teg. ku baax. dëgg la ku ma ndeysaan moo dem ko ma yëgoon mhm. moo noppal tey si nekk dëgg mhm. waaye nu ngi koy ñaanal yàlla mhm. lu ma doon seddale xol nit ñi yàlla na ko yàlla fee fee mu tëdd amiin si barke yonent bi sallallahu alayhi wa si barke Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mais nag rek ku am njaboot deewoo dëgg la nu ngi ko tegal ci mbir yàlla. ci mbir yàlla. yàlla bu egsee. Mhm. egsi na. yàlla bu egsee egsi na. xanaa xamoo nit ki mën na feebar. Mhm. trente ans vingt ans te du dee. Mhm. am ñu ko laa jox mi lekk ñooñu dee. ndeysaan bu mu des moom. ndeysaan dëgg la. lu rek. mbiru suñu borom kon. ah yal na ko yàlla xaare àjjana. yal na ko yàlla xaare àjjana. si barke si barke gis ngeen ñoom baxaaw a ngi noonu gaa yaa ngi noonu ndeysaan ah gis nañ fi sànq Wally Seck gis nañ fi sànq Bougane Gueye Dany moom i Dany Gueye ah ndeysaan Babs euh, ndeysaan soxnaam jaagaa ngi noonu si oto bi ndeysaan soxnaam soxnaam a ngi noonu soxnaam day faatu jaagaa ngi noonu ki ki toog nii moom mooy Bougane gay Dany nekk gorom ndeysaan ndey Fatou Diaga suñu yaay moo nekk noonu foofu ndeysaan suñu yaay ji moo nekk si otom ak euh, Seydina Alioune Seck xam nga Alioune Seck mi ngi tëj bunt bi Alioune Seck tëj na bunt bi noonu ndeysaan ja Diaga moo nekk noonu Bougane a ngi nii toog bugaan a ngi noonu toog Bougane Gueye nekk ndeysaan Bougane nekk Gorom ndeysaan metti na doy na waar wallaahi metti na doy na waar Ndiogou Mbaye a ngi noonu nekk bras droit Wally Seck mi ngi nekk ci lijjanti yi mi ngi ñëw di wax ak sunu yaay jaaga ah jabaru Bougane baa ngi noonu ndeysaan moom mi mi ngi noon di wax a yaayam mi ngi noonu di wax yaayam <coughs> oh gars yi àdduna def lu baax rek am solo wallahi def lu baax kese kese kese moo am solo barki alxuraan képp kuy seetaan live bi rek na nga wax sa làmmiñ Thione Seck yàlla na ko yàlla xaare aljanna ndaxte fu mu toll nii ay ñaan lay gën a soxla ay ñaan lay gën a soxla fu mu toll nii ñëpp a ngi ñëw ndeysaan képp kuy jegeñaale képp kuy mbokk képp kuy xarit képp kuy artiste ah képp kuy artiste rek dag nga say yitte yaa ngi fàq yaa ngi ñëw fu mu toll nii ñëpp a ngi fii ci morgue hôpital Fann mbokk yaa ngi réunir di waxtaan ban heure lañ ko war a yóbbu ban heure lañ ko war a denc fan lañ ko war a dencee lépp incha allahu rabbi dina leer léegi dinañ leen ko wax ndeysaan mi ngi noonu moomee ngi noonu moom mooy jabar bugaan bi nekk doomu Thione Seck ak Alioune Seck ñoom ñoo taxaw noonu di waxtaan di concerté wu suñu yaay jaaga léegi la dem ñu suñu yaay jaaga léegi la dem ak otoom Aba noo lay charé gis ngeen Aba no stress moo taxaw noonu moo nekk suñu suñu suñu kanam nii faafa gaa ngi noonu Faramareen tey tey tey mun naa ne Sénégal moo am dëj senegal moo am dëj àdduna ñoo am dëj Wally Seck ngi noonu si otom oto bu weex be fa la Wally nekk ndeysaan mbokk yeeg jege yi fu mu toll nii ñëpp ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw ndeysaan gaa yi ñu ngi waxtaan nag famille ñu si gën a jege ñu ngi noonu di waxtaan ñoom abaa ngi noonu di waxtaan ndeysaan mbokk yaa ngi noonu jege ñaare Baye Ndiaye moo ñëw noonu Baye njaay bu Aziz Ale Ndiaye ah rakk Ale moom moo ñoo noonu Bougane Gueye ngay gis moo toog noonu gaa yi àdduna ngi nii def lu baax rek am solo bis bii naka ñëpp xalaat naka ñëpp sóor na ku nekk rek sóor bis bis dina ñëw di bis bi aba aba moo taxaw noonu aba ngeen jàkkaar lool gaa yi ñu ngi noonu si oto bi di wax rek waali ñu won leen Waly Ballago Seck mi ngi si biir oto bi toog di joxe ay consigne di wax ak gars yi parce que su génnee rek mi ngi noonu mën na xaw a day waar waa moo nekk si oto bii nii ndeysaan oh. waa ngi si oto bi di waxtaan waa la ngi si oto bi mbokk yi di waxtaan ak xarit yeek am di jàmm gaa yi ñu ngi doon di bokk ak moom naqar bi gaa yi ngi noonu doon wax ak Wally ndeysaan ku nekkee nga ñëw di ko présenter ay condoléances am mbokk yi gaa ngi noonu ndeysaan gaa ñu ngi fii ci morgue hôpital Fann mbokk yi ñu ngi nii nag si desewu coon Thione bi mbokk yi nekk di concerté wu di waxtaan di xool ñuy toppatoo kayit yi di toppatoo kayit yi jege ñaale di waxtaan di xool ban heure lañ ko war a denc fan lañ ko war a dencee ndax ndakaaru lañ koy denc ndax Touba lañ koy denc ndax Tiwaawan lañ koy denc xamaguñu noo ngi toog di xaar moo waral ñu def live bi bokk ak yéen ngeen xam ni rek bëgg ngeen xam li li fi ne Bécaye Mbaye ngi noonu di soogee yegg si ndeysaan Bécaye Mbaye ngi noonu di soogee yegg si Bécaye Mbaye ngi noonu di wàcc si oto bi Thione Seck xaritu ñëpp xaritu Sénégal lay wax ku yàgg bégal sénégalais yi doomam nekk aussi di bégal sénégalais yi gorom di bégal sénégalais yi ay nitam ay jege ñaalem Bécaye Mbaye mi ngi ànd ak El Hadj Papa Dieng suñu papa ji ndeysaan tey ñëpp am leen bett ndeysaan gaa ngi noonu ndeysaan Njoogu Mbaay ngi noonu nekk xaritu Waly Balago Seck nekk bras droit am ngi def ay va et vient ba léegi mi ngi lijjanti affaire yi abaa ngi noonu ak Bekaay Bekaay Mbaye ngi noonu ak El ndeysaan Aziz Ndiaye mi ngi noonu ànd ak Baye Ndiaye gis nañ Wally Ballago Seck ba pare ndeysaan ci yàlla sami cuun ngi noonu ku ci nekk ngi ñëw di wax ak Wally Wally ngi noonu si si oto bi waa lay nekk noonu si oto bi waa lay ngi noonu si oto bi waa lay ngi noonu si oto bi Bécaye Mbaye ngi noonu di waxtaan ak Waly Ballago Bécaye Mbaye mi ngi noonu waxtaan nag Waly Ballago ba pare nee na ko senegal bi yëpp wuy si nañ la bul xalaat dara na sa xel dal ndeysaan Aziz Aly Ndiaye ngi noonu mook Baye Ndiaye ndeysaan gis nga Baye Ndiaye ngi noonu taxawoon ak Ndiogu Mbaye léegi léegi Sala Bigué Sala Bigué ngi noonu ndeysaan tey tey tey tey tey ngéwél am na dëj senegal am na dëj lu métti ndeysaan tey morgue hôpital Fann bi fees na dell ndeysaan ñëpp fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp fi nekk ñëpp jigéen ñeeg góor ñeeg ndeysaan ñëpp fi nekk ndeysaan àddinaa ngi nii de gaañi demal rek maa ngi ñëw la parce que bis bi kenn mënu see mucc kenn mënul mucc si bis bi kenn mënul mucc si bis bi li am solo rek mooy def lu baax ci àddina képp kuy seetaan live rek na nga ko ñaanal xam ne yàgg nañoo bégal ni ñu doon bégalee yan la ko saa borom bégal ci biir bàmmeelam yan la ko saa borom xaare aljanna ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yaa di wax rek na ku nekk ñaanal ko ndaxte commentaire yi am na solo lool partage yi am na solo waaye bu ñu fàttee julli ñaanal ko parce que ku fi génne àdduna bëgg nga ku la ñaanal ñaan rek lañ koy desel dañ leen ko ñaanal saa borom yërëm ko saa borom ko aljanna ñaan yàlla atte ko ci yërmandeem defal ko mboolem jullit ndaxte tey Sénégal gars yi tey Sénégal gépp am nañ leen bett ndeysaan oh, oh ndeysaan gars yaa ngi noonu suñu papa Bécaye ak euh, Sala Bigué ak ki nga xam ne nii moom mooy El Hadj Papa Dieng ñoom ñoo taxaw di waxtaan noonu ndeysaan ku ci nekk dem nga ci waali waxtaan ak moom ku ci nekk dem nga ci waali xamal ko ne ñu ngi bokk ak yow naqar wi ñu ngi bokk ak yow tiis wi waaye bul tiit dara senegal gépp a ngi fi ndeysaan ku nekk ngi waxtaan ndeysaan presse baa ngi ñëw nànk-nànk bugaan moo toog fële gaañi moo toogoon na le Bougane a ngi noon di wax di wax téléphone Ameth Jackson nekkoon xaritu Papa nekkoon doomu Papa Thione mi ngi noonu àdduna ngi nii débuté carrière am ak Papa Thione instant bi mënul sax comprendre ndeysaan mënu ka gëm kenn mënul gëm lii wallaahi kenn mënu kaa gëm kenn mënu ka gëm kenn mënul gëm lii wallaahi kenn mënu ko gëm ki ngeen di gis muy dox nii di dem moom mooy Ameth Thiou Jackson nekk xaritu Wally nekk frère Wally nekk doomu Papa Thione parce que moom ak Amady Badiane bu ñuy débuté seen carrière ci dance Papa Thione lañ àndal ànd nañ moom fu nekk ndeysaan mënatul dox toog na dafay toog ndeysaan dafay toog mënatul dox ndax lan papam moo génn àdduna papam moo ko bett tey mi ngi dem ci kër dëgg ko bàyyi ñu fi ñun ndeysaan ku ci nekk rek soo taxawee di nga am naqar di nga am lu la bett ku ci nekk di nga taxaw dinga làqatu laqatu di nga jooy àddunaa ngi nii gaañe ku baax kii ngeen di gis nii jegewoon na ko lool mooy tuur xewal noonu amet ci mi ngi noonu toog na mu ngi jooy am na lu ko metti xam ni bisa ngi ñëw ñun ñëpp ala kulli xaal dinañ ci jaar yàlla ñu fekk ci lu rafet yàlla ñu fekk ci lu rafet yàlla nañu fekk ci lu baax fi mu toll nii faramaarem yëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñëpp mbokk yeeg jegeñaale yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg ñëpp ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw ndeysaan allahu akbar ñëpp a ngi noonu taxaw ndeysaan ñëpp a ngi noonu taxaw mu doon lu doy waar fu mu toll nii ñu ngi fii ci morgue hôpital Fann Gagny Gagny di waxtaan foog ma taxaw nii tuuti vu que dafa tànk parce que tàngaay bi su jàppee téléphone yi téléphone yi rek Gagny dafay xaw a doy waar live bi day arrêté moo tax ma taxaw ci kër gi nii pour téléphone yi mën a sedd tuuti ñu mun leen won li nga xam ne nii moo fi am gis ngeen mbokk yaa ngi fi jege ñaale yaa ngi fii am di jàmm yaa ngi fi kon gars yi naka ñëpp ñaanal yàlla xaare ko àjjana saa borom bu baax la Sénégal ñëpp ñoo bokk Sénégal ñëpp benn lañ su lii amee lañ si xam dara showbiz naam dëgg la am na waaye après showbiz gars yi ay mbokk lañ ay xarit lañ ay am di jàmm lañ tey ku fi yàlla dénk baat ba ngay woy soo waayee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek wàcc nga te moom jàngal nañu ci li mu woy ci Seydina Muhammad waali balagoo ngi noonu di jëm gars yi waali sekke ngi noonu ndeysaan waalee ngi noonu gars yi waalee ngi noonu di dem ci morgue bi di xooli papam waalee ngi noonu di dox ndeysaan mi ngi Mbay Njoogu Mbay moo jiitu waali topp si ginnaawam noonu ndeysaan waalee ngi di dem mi ngi dem pour lijjanti kayit yi waaw famille bi famille yi dañuy waxtaan famille yaa ngi noonu di waxtaan waale ngi noonu di dem waa ah? waale ngi noonu di dem ndeysaan gaa yi ngi dugg di waxtaan pour xool concerté wu nan ak naka lañuy def gaa yi ngi dugg di waxtaan pour xool lu ñuy def suñu papa Samy Thioune ngi noonu nekk frère Thione Seck nekk papay Waly nekk léppam fu mu toll nii mënut a wax mu ngi téye kurusam rek di ñaan parce que ñaan rek la ko desel fu mu toll nii ñun ñëpp ñaan rek lañ desel suñu papa ji Thione ñaan kese lañ ko desel nañ ko ñaanal saa borom xaaree ko àjjana saa borom teeru ko ci àjjana yi firdawsi mi ngi noonu gaañi fu mu toll nii Sénégal gépp ngi ñëw su yàggee tuuti kenn dootul xaj biir hôpital Fann wallaahi wallaahi presse baa ngi fi ñëpp ñëw nañ macha allah bokk ñoom naqar bi ndaxte suñu papa coon ndeysaan yàgg na ñoo bégal bégal ñu ba yàggul dara rek mu mu mu teg benn plateforme coon TV di invité jeunes artistes yi jeunes talents yi ñu xuloo mu leen di jiboole di waxtaan ak ku ne yàggul dara ndeysaan gis ngeen mu invité fi ñoom Pawlish ñoom Ouzin ndax lan coow yu ñu amoon mal di yooyu fexe ba jàmm am seen diggante ndeysaan gis ngeen mu toll ni nag bunt bi ngeen di gis waale Wally ko Seck mi ngi foofu nekk fa ay jege ñaare di waxtaan di xool ban heure lañ war a denc Papa coon fan lañ ko war a dencee ndax yoof la ndax Touba la ndax Tivaouane la xamaguñu gars ñu ngi ciy waxtaan di xool nu ñuy def ndeysaan àddunaa ngi nii demal maa ngi ñëw rek la na ku nekk xaar bis bii na ku nekk xalaat bis bii nit ku nekk lépp loo munti def ci lu baax rek nanga ko xeeb xalaat bis bii nga xaar bis bii waaw xoola waaw dama fàtte sama papa xoola xam nga lay def jël jëlal sama numéro yaay nga ñu waaw fee nga dem Grand Dakar jël sama papa benn ok ndeysaan gaa yaa ngi noonu gaa ngi noonu di waxtaan di xool lu ñuy def ndeysaan Ameth Thiou mi ngi fële toog ba tey ndeysaan mu ngi fële toog ba ba tey 77 657 64 38. non la jamono rafet te bañ di xawaare te tey xam nga loolu bi ñu koy woy c'était ay soixante six soixante dix sept soixante dix kon lépp coon dafa mën a ak njaboot coon li mu woy yëpp yàlla la boo dee dégloo ay woy ci bëri yàlla yàlla yàlla yàlla kon gëmoon na yàlla comme yàlla moo demee noonu ay mbiram ñu mën a wax ci coom dafa bari ñi ci ñeneen a ngi fi ñoo xam mën nañ ci wax lu raw sax li ma ci wax yàlla na ko yàlla a ñu taxawal soo nekkoon maa ngi lay fay bu baax tey jëm ji jóge ci ginnaaw coom seen yéen relation yi amoon loolu moom day suñu mbokk d'abord muy relation mbokk mooy daw caaxaan sama benn jarbaat bi ñuy wax góor a jub jël air bi woy ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma woo ko ni ko envoyé naa ko ma déglu ko woowaat ma ci góor ñu woowaat ci góor ñu dëkk ma ko sama jarbaat mu ne ma kii de dama bëgg jox ma numéro ma woo ko sama émission ban laa ko émission yu ëttu diine yi ma def ko télé bi. ndeysaan ma def ko numéro góor mu woo góor ñoom bu góor ñu ko pare góor woo ma ne a ko daan naa teel léegi la ko daal pour woon jullite la. ku mhm. jullite parce xam naa dara def naa ak moom émission biir këram. mais bi waxtu timis jotee timis ji di wàcc dañ ma nañu bàyyi lépp julli ba pare te loolu moom ko ko xam xam ko ci coono te li Alaaji Bekaay wax léegi rek waaye nit yàlla la moom xamoon na ne président lañ way na ci moom mooy ñi nga xam ne way na ci woon dugal ci ay ay alxuraan da ngay jël leer yàlla day jël leer jëlee ko dugal ko ci biir lëndëm jël lëndëm dugal ci biir leer léppam yàlla dugal sax da ngaa ñu koy wax way na ànd na way na sëkk way na ànd na lu mu way way yoo xam ne génération ila ajjële ñu saman génération bu ñëw da ngay mën a bénéficier wu ci ay woy parce que moom tam dakk yàlla yi la daan woy donc mu nekk suñu mbokk ak suñu mag baaxoon yàlla yàlla mu ko teg ci biir bàmmeel amiin te njaboot yi fi yàlla yàlla teg loxo doomam bi nga xam tam mooy waa yi nga xam ni tànk moom papaam euh, doxoon rek ci lay dox moom it yàlla ko fi yàlla bàyyi ba projet yi papaam naa loolu yëpp ñu àggale ko ak njaboot yëpp ñu ko jaale Sénégal yëpp ñu ko jaale njabootam ñu leen ko jaale yéen ñëpp parce que presse beeg communicateur yeeg apisi yeeg waaye kër yi ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk ci kon kon suñu lépp loo yàlla jël na ko waaye dañ koy ñaan yàlla ko yàlla suñu borom tàmbal ci àjjana yi gën a kaw allo jërëjëf Thank you. mbokki téléspectateurs yi seetaan TFM miroir du Sénégal ñu ngi fii ci hôpital euh, Fann bi nga xamante ni euh, fii nañu euh, denc Papa Thione yéen gis mobilisation bu mag bi la nga xamante ni que nit ñi ngi ñëw euh, taxawu ko ndax képp ku dégg xibaar bi euh, jóge nga fu ne ñoo fàq si fi nga xamante ni moo di fii ci hôpital Fann euh, ñu am mbégte nag jàkkaarloo vraiment ay papa ay xarit ay ndaanaan yi nga xamante ni que télévision mën leen wax ni ñoom nooy référence ku ci mel ni papa Bécaye Mbaye moom laa jox kàddu gi laata may ñëw suñu yeneen papa yu baax yi Bécaye waaw waaye man alaaji Papa Dieng yaakaar naa ne benn la rek benn alaaji Papa Dieng alaaji Bécaye alaaji Papa Dieng benn la rek waaw mu coon bi xam nga ni dem bi mu dem lépp la bett te lépp la métti tamit waaye mbiru yàlla te moom dara doon xale boo xam ne nag xale bu baax xale bu am diine xale bu am jom xale bu bokk ci famille boo xam ne bu mu ñëwee yaatal xale yu bëri jaay ay mbokkam ci ay rakkam magam ñoom ñëpp mu dugal leen ci musique presque seen waa kër yëpp ay woykat la ñu bokkal baay ñu bokkal ndey ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne seen i ndey yëpp ñëpp nga ci musique ba pare jàppale leen nag ci mel ni ñeneen nag ñeneen nag ñeneen nag su ngay lim du jeex pour mu gën a ak na ñoo loo comme li ñuy wax rek mu teg ko ci loxo yàlla te di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana dama lay wax ne la liggéeyal na askan bi lu rëy rëy ci wàll musique ak art ak culture bokk na ci paroles yi gën mag ci àddina moo tax ci Sénégal mais ci àddina li muy wax tam ci musique ak tamit fi mu ko véhiculé ak fi mu ko yóbbu doon loo xam ni Sénégal yëpp koy yëpp ndax tamit euh, lu mu woy senegal la ko woyal woyal la ko boppam mm-hmm. am na morceau yu bari yoo xam ne bu déggee li muy wax mu xam ne li muy wax luy am la bu ko fekkee bu ko fekkee li muy wax tamit jamono la li muy wax tamit dama loo xam ne du xew bi mm-hmm. li muy waxee dara du ci xew bi mm-hmm. loolu moo tax mënuñu def lu dul ñaanal ko yàlla xare ko àddina te ñoo suñu wala léegi ñu ngi perte bu mag a mag la pour musique bi ndax ci économie la bokk nga xam ne dañuy parce que foo toll ailleurs à travers le monde donc coono bàyyi na fi loo xam ne heureusement wàllu nekkee ak ñeneen ñoom asalam ñoom ñëpp ndax lekk bi tamit ñu ko tegee seen loxo def naa dafa bëgg ñu yëkkati ko te yaakaar naa ne xale yi tamit te àjjana jërëjëf kooku mu di El Hadj Papa Dieng mu toll ni gaa yi kilifa yeeg ñëpp ñëw nañ ñëpp a ngi fi ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu mbokk yi taxaw manjaay mi ngi noonu manjaay sekk mën naa ne tey papa moo génn àdduna mi ngi noonu taxaw xamul nu muy def yeewu na rek ndeysaan dégg nouvelle bi mu doy waar loolu ndeysaan maa ngi ziar képp ku nekk ci ci direct bi Mansour Tambédou maa ngi lay nuyu di bëggee ñëpp di wax nag na ñëpp ñaanal suñu papa ji sa borom xaaral ko aljanna cat bañ kaa jiitu ci bàmmeelam ndeysaan l'ancien ministre mooy wax ni Serigne Mbacké Ndiaye ci ci yàlla musal da ngay sant yàlla. merci baax a baax a baax loolu. merci rawatina seen seen seen jaboot ak mbokk ak taxaw li ci des nag mooy am na am na ku ko ñàkk ci dina am na man su ma diggee personnellement depuis les années soixante-treize ñëpp ay ndaw lañu booba defe naa ne xalaatu bu woon def ñu ngi moderne baa bu yore oto boobu ñu ngi ne sama gaara soriwul non non mais ëpp na. donc naqar la ñu am rëy rëy di ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana njaboot bi bàyyi ko bal ma yàlla teg ñoom loxo parce que lii ma jox Sénégal moom loolu la ñëpp di bokk gis dëggum filaam faydaam bëgg nga bokk bëgg liggéey donc loolu moom comme niñ ko wax il fait pas dans la langue de bois mu xalaat moom lay wax mhm. li mu gëm moom lay def te loolu mhm. am solo ci doomu aadama donc ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di koy jaale toute la musique sénégalaise di koy jaale di ñaan aussi projet yi nga xam ne tegoon na ko mhm. ñëpp mun ci jàpp muy njaboot muy état du Sénégal jàpp projet yi mun ko eggale parce que njariñu am Sénégal jërëjëf koo ko doon wax mooy Serigne Mbacke Ndiaye nekk ancien ministre nekkoon xaritu coon nekkoon wëllëreem nekkoon léppam macha allah moo nekk noonu hmm? Hmm? maa ngi ne gaa ngi noon ndeysaan taxaw di xaar nekk si gaa ngi noonu taxaw di xaar Ahmed Sou Jackson mi ngi toog fële ba tey ndeysaan mënut a wax nekk si Ahmed Sou mi ngi fële tax toog ba tey ndeysaan ñu xool rek tuuti ay kàddoom ndax dina mën a wax ak ñun ndaxte metti na wax dëgg yàlla metti na trop metti na trop moom papa moom sax mais yow yow laa bëgg rek nga seddal ñu tuuti rek si diggante papa ak doom bu ñu doonoon ñoom ñaar ndaxte Ameth bu muy débuté moom ak papa coon la mën naa ne moo ko dalal baa lépp loo xam ne def na ko ci aar papa coon la taxaw na fële sànq ba léegi ñu ngi koy gis mënatul taxaw fële mënatul téye boppam sànq ñu ngi dégg si ay kàddam suñu Papa Thione kilifa la tey suñu taxawee tuuti Sénégal gépp dinañ fi ñëw waaye nañ leen dal def nànk ñaanal ko ndaxte bis bii jëmul kenn waaye nañu ñu dénk ñu dégg ko loolu mu koy seede ñu yàgg toog ay jotaay fu nekk muy wax si Papa Thione rafet kon suñ ko gisee mu toog nii faa ñu ñëw ñu ñu ko Sénégalais yi ndaxte sànq ba léegi balaa ñoo def suñu ay live mu ngi doon wax lu rafet li nga xam ne ne dund noo ko ak papam des fois sax gars yi dañu werante moo mook waali kan la si gën a bëgg ndaxte moom xaritam la woon léppam la lépp loo xam ne ni mi ngi koy def tey ji nii lu ko neex rek neex na Papa Thione moo tax sànq ba léegi am na lu ko metti mënut a taxaw mu ñëw ba fi isolé wu toog am lu ko metti waaye ñu ngi bokk ak yow naqar gi moo frère di la di di la ñaanal saa borom mooy la xolu muñ mooy ko àdduna parce que Thione Seck Thione Seck àdduna la maa jur waale rek doy na waxatuma la ak tey jii lu ñu defal waaye nag xel dal na ci moom ndaxte nit su la saa borom dénkee baat ba nga way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa rek arrivé ga waxatuma la nag way bu mu way jàngale la lépp lu mu way mi ngi ci téere alxuraan lépp lu suñu papa coon way rek mi ngi ci téere alxuraan sëy yi day am problème gars yi déglu ay waayam xaritoo yi am ndeysaan gars yi ndeysaan gaa ngi noonu gaa ngi noonu Amet benn ñaan rek booy booy ñaanal sa rek fu mu toll nii lan nga yëg dont c'est c'est vraiment fort mais sa ay fans sa ay frères sa ay xarit sa ay am di jàmm yu lay suivre à travers réseau yi lan nga leen di wax Amet nga nga dëgër tuuti rek nga mën leen dalal ndax sa kàddu dina dalal ñenn ñi. dina dalal ñu bëree bëri ndaxte soo dëgëree waxtaan ak ñoom xamal ne tey jii ni ñun ñëpp alaa kulli xaal dinañ jaar ci lii donte metti na ñu dëgër rek waxtaan ak gaa ñi ñu dénk leen ni que message baax na bind RIP bind bind baax na waaye ñu julli ñaanal ko ku nekk def ñaari ràq ñaanal ko daf ci am solo loolu lan nga ci yokk Ameth benn kàddu rek nga may ma ko ndeysaan mënul wax mënul wax jëm naa naxtaan ak moom ndeysaan waaye waaye mënul wax moom Amady Badiane fu mu nii ñoom ñaar ñëpp seen tànk yi dañoo jaxasoo sami cuuna ngi nale mbay seen wéyul amet ndeysaan mbay mbay seen wëndeeloo ngi noonu mbay seen mbay seen instant am na lu ko metti mbay seen am na lu ko metti ndeysaan ndeysaan billaay mbay ngi noonu mbay mbay mbay am na ñooñu bett ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan gars yi am nañ leen métti billaahi oh, ku nekk di bokk ak sa morom naqar gi nga xam ne nii mi ngi fi am waaye gaa ñu ngi noonu di génnaat ndeysaan pour wax daj bi fan lay ame ndeysaan Youssou Ndour ñëw na ndeysaan àdduna ngi nii Youssou Ndour ñëw na Youssou Ndour a ngi noonu gaa yi ngi nii Youssou Ndour mi ngi noonu di dox Youssou Ndour a ngi noonu di dox mi ngi noonu si otom Youssou Ndour micro yi micro yi arrière leen ko arrière leen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 yeewu bu métti métti métti na ko yàlla xaree àjjana amiin vraiment am nañu tey lu métti métti métti métti jërëjëf ah Youssou Banaaw ba nga déggee information bi te information bi ba nga xëyee yeewu dégg ko information bi moo yee ñëpp ñu mhm. ñëpp ci lal wàcc leen xam naa loo xam ne bu xewee buntu amatul mhm. jóg rek mooy donc métteel mhm. gis ngeen Youssou Ndour Youssou Ndour moo doon sànni ay kàddu léegi léegi gaa dégg ngeen li nga xam ne nii wax na ko te képp koo xam ne nii tey jullit nga rek képp koo xam ne ne tey jii ni sénégalais nga am nga lu la bett am nga lu la metti ndeysaan tey waaye baxaa ngi noonu mun ta wax Baaba Maal ñëw na a ngi noonu Baaba Maal ak Youssou Ndour Baaba Maal Baaba Maal Baaba Maal ak Youssou Ndour bi nga yëgee nouvelle bi loo yëg ba ah, nag ñu déglu Baba Maal tamit muy yëkkati ay kaddu bu mu egsee moom ak Youssou Ndour ñu saafonte ah, laata muy dugg ci biir bon nag Baba Maal tey yan kaddu nga ci wax ak mbégte affaire bi ba nga koy yëgee ban impression la la def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 coon moom a faire découvrir euh, la musique moderne sénégalaise. Mhm. parce que daf ma daan jël man ak moom ak Doudou Seck. Mhm. ñu dem fekk ji ko Balaton. Mhm. toog moom yëg ci kaw la sur la scène woy ba cinq heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu clando ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram. li ma gën a neex ci coon nag sama diggante moo mooy di jooj sama technicien. mu ne ma gis nga li ma initié damay invité ay personnalité de la culture di waxtaan ak ñoom mm-hmm. ci musique sénégalaise kañ ngay ñëw ma ne ko non non du ma ñëw parce que yow da nga may dugal ci ay waxtaan yoo xam ne bëgguma ci dugg maa ngi dem Podor dama am réunion mu ne xamoon naa ni du ñëw boobu laa ko ji wax ndeysaan mm-hmm. ah bon nag kàddu yi ba ma la jox ñu ma bon nag gis nga ñun lépp nag lay kon nag rek moom moo ko doon témoin ndeysaan ndeysaan kaddu yaa nekk noonu kaddu yaa nekk noonu babamaan moo nekk noonu di dugg ci biir ndeysaan pour waxtaan ak ñoom Wally Seck abaa ngi noonu si biir ndeysaan gaa yi ngi noonu ndeysaan Pawlish a ngi noonu Pawlish Mbaye ndeysaan suñu papa Koso yi ngi noonu. Père Seck maa ngi lay siyaare. Père Seck mu nekk mu nekkoon sa frère mu nekkoon sa sa genn wàll. bi nga yëgee nouvelle bi tey si suba gi loo yëg Père. jaaxle comme ñëpp rek ah. parce que yëgu ma woon ni sax dafa xew ah. allah je n'étais même pas au courant de que ñu jël comme yow xamoon nga coono ba kaay. presque dama ki daan yóbboo ba coon juddoogul. Mhm. moo moo ko yóbbu moo ko yóbbu. ki yóbbu ba tey. Mhm. moo ko nag. Mhm. dañu xaar suñu bas. ndeysaan moom ay palaatam lay teg. yàq def ci rek lay def. ndeysaan yàq def ci rek yéen ñaar kañ ngeen gëj a déggante kañ ngeen mujj a déggante. non du ma toog trois jours yi ñu déggantewul téléphone ma moom. mel ni waxante wutal oto léegi. allah akbar ak ah, ñu xam ni tamit sa lañ ko tuddee. waaw ban lien nga am ak Thione Seck. sama papa moo ko uuf tuddee mm-hmm. ko boppam. sama papa moo ko uuf tuddee ko boppam te ko bàyyam Seex Seck waroon mi ngi toog. Mm-hmm. sama papa teg ko boppam ni kii Balago Ndoumbé yaat ma mii lay tudd yaral ko boppam nag. allah waaw. coon bi ko sama papa di jël di ko andi ci kër gi solo daal waaw. ñu gis boobu boobu muy am quatre ans. ci ci lay doon. Hmm. mais ñu gisee ñaar affinité bi ngeen amoon. Hmm. seen jeunesse yëpp yi fu muy dem yéenay ànd. mooy sama papa sama papa am na lu ma juróom benn fukki juróom coon hmm. moo ci mag. te yéen ñaar seen seen seen complicité fu mu doon dem yéen ay ngeen di waxtaan mu amoon diine lool. loo ñu mën a wax si loolu aussi. ñoo bokk lépp. ko mës a gis gis ma. tristesse bi nan ngeen yeewoo. ah xanaa jaaxle rek comme comme tout xam nga xam nga yàlla moom. yàlla moom ay defam dafa grave. Mhm. yàlla bu defee il faut yow boo dee nit il faut nga yëg ko. waaw du fond de toi-même il faut nga yëg ni am na ku jóg. Mhm. nit ñi nag dañuy fàtte ni léeg-léeg jinne bu soxlaa daxaar ku yëg daal coon xadañ coon xajoon na fi ah mhm. waaye nag ki yóbboo moo ko yóbbu waaw loolu moom kenn mënu ci dara. jërëjëf Abdou Seck jërëjëf Mbaye délégué suñu papa Mbaye délégué Mbaye délégué waaw suñu papa Mbaye délégué moo nekk noonu di témoigner si si commerçant waaw léegi ban léegi amal tonne sec. ñii wax ñëpp mu tonne maa ko xam. maa ko yor mu nekkee xale bu ndaw ca Pikine. ak ma benn sec rakkam. Ablaye Naar sec seen mag ñoom papa sec ñu ànd sama rakk Ndiaye Lo Mbaye. loolu yàgg na ca coon dama ci xam sax yëpp mënu ma ko wax ndax sama sama waaye nag kuy na seen saa yu xasin moom kuy mën wala yaa famille mais coon mii day ku baax dem na mhm. ku am yërmande dem na ku mën a dimbali waa dem na man nag li may wax man waxuma ko pour pour pour pour waxi waxi ci damay wax ci yàlla tax mhm. damay wax ci yàlla tax ndax yàgg yàgg dama koy fekk kon nag mhm. damay wax ci nit rek na nga wax ci yàlla tax waxuma ko it wax opportunisme wax pour waxi dara waaye tey ma ma pend bu taxoon fii tey dina xam ne man li may wax dëgg ndax maa leen yar ba ñu nekkee Pikine fan ma tur bi ndax juddu tey ca Pikine hmm. juddu tey boobu dem nañu ba jël seen émission nationale de la jeunesse booba tam sekk nga ci xali sekk rakkam juddu kon nag yàgg naa moom ba mu xol mais euh, euh, euh, ci folklore bi ñoom di see kàppo di ko tëggal ñoom ñëpp ci la ma fekk mm. njaaloo ngay sama rak kon nag xale bi yal na ko yàlla xale àjjana yal na ko yàlla yërëm ci yéexuñu barkan bi islaam li mu doon def ci lu baax dañ daan nit ñi dañ daan ñëw di toog buntu kër di fa fanaan ba bët set su yow ku nekk nekk dara jox la yàlla nag laa ko yàlla gaa ngi noonu ndeysaan ba ci Pawlish mi ngi noonu nekk doomu Thione Seck yàggul dara suñu papa Thione bu mu bu mu tegee plateforme Balago TV di invité artistes yi Pawlish mi bokk na si ñu njëkk invité ndax ñoom ñaar relation ñu amoon nekkoon ay xarit nekkoon amoon complicité boo xam ne ne tey jii nii mun naa ne Pawlish complicité moo amoon ak ak waaye sax am ko woon ak moom Pawlish bi nga yëgee nouvelle bi tey loo yëg Pawlish. Mhm. ndeysaan lan ngay ñaanal sa papa parce que Balago TV bu nga ko tegee bokk na si ñu ñu mu njëkk invité. nga waxtaan ak moom mhm. kan moo la woo wax la décès bi Pawlish da nga yeewar a gis ko si réseau yi gaa ngi noonu ndeysaan gaa ngi noonu di waxtaan ndeysaan suñu toll nii ñëpp a ngi fi xarit am di jàmm yi ndeysaan ndeysaan gars c'est vraiment triste wallahi c'est vraiment triste metti na lool bunt bee ngeen di seen nag fa la nekk ak mbokk yi gën a jege xar am di jàmm yi di waxtaan di concerté wu ndeysaan ba bi alilika ibrahima yallahu ba bi kalimika musa salihin وبشوياه Matar a ngi noonu maxu Matar Diop Subatel nekk PDG Subatel musique moo nekk noonu Mandiaye Seck ngi noonu waaye Mandiaye Seck na mi ngi ànd ki nga xam ne ni moom mooy manager am na nga lay char Baye وهب لنا الخسنا في دارين يا الله وافتح لنا كل باب كل باب لسالكين من الخير يا الله وسقينا نختار شربتنا دلالا وتجلنا الجن والشيطان يا الله الله اكبر وكملا كل ما ننقو ونقصده وغب لنا كل ما نختار يا الله Ibra Kassé la moom papam lañ tuddee Thione Seck ndeysaan doon lu triste doon lu triste ndeysaan gis ngeen mbooloo mi fi taje yëpp gis ngeen ko kon mbooloo mi Njool Sikkim noonu nekk xaritu Papa Thion wata miran bu laaf daa hindidirun biina xabla alwusul ilana yallaahu yallaahu wa kun lana siman min kulli mahlakatin ونجنا من بلايا دخري الله وافات الغاد المقصد المهان زلزلة شتات والفقر يا الله إلى أن خلات مغسلات خلبين وفقات أتاش وجوهي الله وفتنتين والوباء والقرق ما قرقين طب جوفا نونو والبرك ما سرق والكد يلا Pape Diouf de la génération consciente bi nga ànd ak Khadim Pape Diouf a ngi noonu Pape bi nga yëgee nouvelle bi tey loo yëg Pape parce que xam naa ne am nga lu la bett comme nu mu bettee Sénégalais yëpp waaw euh, salaamaaleykum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. di nuyu àddina mhm. di wax ne tey monument moo daanu mhm. baobab moo daanu li dal tey si Sénégal si àdduna bi la dal suñu Bamba Thione Ballago et artistes yi ñoo ñàkk Sénégal ñoo ñàkk àdduna ñoo ñàkk yal na ko yàlla xare aljana amiin